may julli nag ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni bi ko suñu boroom yónnee dafa ñëw wommat xeet wi nit ñi la wommat ña ca nangu mu wommat leen tàggat leen ànd ak lewet ak wax ju rafet teg leen ci yoon woo xam ni yoon wuy defar seen àdduna la waaye di defarit seen àllaaxira ma di ci teg nag ñi nga xam ne ñooy ay ñoñom te taxawoon taxawaay bu mat sëkk nekkoon nit ñoo xam ne dañoo amoon ñeewante ak yërmande ak dimbalante ci seen biir waaye nag ñu tar lool am fulla lool ci ci képp koo xam ne noonu na yàlla may wax rek ni ginnaaw loolu xam naa dañuy sof rek suñu nuyoo la antara waxoon moom lay wax هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي moo ndax woykat yi doon woy bàyyi nañu benn porox ndoll boo xam ni beneen woykat mën na cee jaar pour wax loo xam ni moo gën a rafet mbaa mu gën a kawe seen wax moo ma dal ci jotaay bi loolu li ma ci namm moo di ñi nga xam ni jot nañoo jël kàddu commencé ci Cheikh Bécaye mbay mi nga xam ni moo taxaw wax wax ju rafet xamle jataay bi jox ko laytaay bi nga xam ni moom la yellool mu jóge ci ñu jox ko ki nga xam ni moo yore communication bi di monsieur le maire Ousmane Gueye dañ ci jógee ñu jox koo xam ne suñu kilifa la di rakku sëriñ bi toogal fi ak i magam doon koo xam ne itam ku am kàddu la ci dëkk bi ku amit dayo la muy alxaaji sax Sidi Maxtaar Kunta di taawu baay bu Muhammed bi ñu paree ci loolu yàlla dogal ñu julli timis ki nga xam ni jàpp naa ni mooy xaritu Sénégal waaye ma wax ni mooy xaritu Njaasaan di xaritu bépp këru diine muy monsieur le ministre de l'intérieur ak ñi mu àndal wax wax ju rafet yoo xam ni gàmmoon na gàmmo gi ndax li mu firi ci suuratul maida bu ñu ko dëloon di ko càmbar doon na loo xam ne mën nañ cee def gàmmu gi ba mu jeex tàkk moo tax ma wax ni ndax bunt amatina walla fenêtre boo xam ne man mën naa cee jaar pour wax wax joo xam ni dana am dayo comme ñoom ni ñu ko waxee waaye nag fekke muccul loolu wolof di wax te nit ki buñ ko yenee lu mu àttanul mu toog ak ñoo xam ni jàpp na ni lii ñu ko yan mu yor ko ñu koy déglu di ko seetaan ko gën a man xanaa day jéem tey sàkku ci ñoom ni bés boo xamee ni juum na ci li ñu ko yan te mënu ko ñoom ñoo ko mën a jubbanti mën koo rafetal loolu kon mooy sama toogaay fii may wax rek ni monsieur le ministre sëriñ bi ci boppam ak njaboot gi ak communauté xaadiriyee yëpp te tew fii tey ci Njaasaan ci biir Sénégal ak ci biti senegal ñoom ñëpp boole nañu seen kàddu jox ko sëriñ bi di xalif général bi di Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh al Bekaay mi nga xam ni moo doon nu baayam doon nu magam di nga xam ni moom la fi wuutu muy alxaaji Mambu rahmatullahi alayhi doonu Cheikh al Bekaay waaye doonu Cheikh bu Abu Mohamed Kunta doonu nag Cheikh bun Ama Kunta mi nga xam ni moo nekk ndàng Cheikh al Bekaay moom mu nga xam ni tey yàlla baaxee na ko mu ngar daañoo tariqa al yàlla daf ko dolli beneen yan yan bi mooy lan mooy yàlla dafa dogal ni tey ci askanu kunti yu ci ñi soqi ko cheikh bu maama kunta moo ci mag moo mag njaasaan moo mag ndànk moo mag sanc buuna moo mag ndeer moo mag it guyat loolu la yàlla dogal kooku nag bu toogee toogal fi njaboot gi toogal fi taalibe yi waaye toogal fi lislaam bi wëlbatiku woote lu mel nii njiitu réew mi xam ni dayo bi toll ñu jàppoon ni tey moom jàpp na loolu ni bu ko mënoon moom ci boppam mooy ñëw jiite délégation bi mu xool koo xam ni bàyyi na ko xel am na dayo mu boole ko ñi mu koy booleel mu ministre de l'intérieur mu ñëw fii joxe kàddu njiitu réew mi ak ndokkeelam ak lañu ñu def te jaar ci ànd ko ay ñam yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi ak bi loolu dafay daal di kawe lool ci sëriñ bi am dayoo loolu ci sëriñ bi tey nag sëriñ bi amoon lu ma dénk mu di ñetti mbir yoo xam ni sëriñ bi waxoon na ni naa ci waxtaan ak njaboot gi waxtaan ci ak ñi ngànk réew mi soo demee nga yóbbaaleel ko ko ndax sëriñ bi li mu jàpp mooy nekku fi rekk ngir taxawal fa loolu ñuy tudd tariqal qadiriya waaye daf fee nekk ngir taxawal fi njabootu diine ji muy ummatu Muhammad rawatina nag njabootu Sénégal gépp jàpp na ni képp kuy dund ci senegal di fi yeewoo rek sëriñ bi jaboote na la responsabilité la ci am ci bés boo xamee ne am nga bàndeex maa nga am naqar moo am nag ñett yoo xam ne daf ko jaaxal benn bi moom la arab di tuddee as salafiya ngeen di ko wax salafiste mu doon tur woo xam ni xam naa gaa tur bi beesul waaye ñi ko jël ci jamono bii dañ ko xaw beesal as salafu saalih muy ñi nga xam ne muy mag ñu baax ñi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu demee taabiin yi ñëw mooy ña ca topp bi ñu demee taabii taabiin yi ñëw taabiin yi ku mel ni imaam Malik ci la bokk ku mel ni imaamu Shafii ci la bokk ku mel ni Ahmad ibnu Hanbal ci la bokk ku mel ni Abu Hanifa ci la bokk ñooñu ñeent nga xam ne ñoo ŋànk tey loolu ñu tudde ay ngër di ay yoon yoo xam ne càmbar nañu alquran jàngat ko ci ni ko yonent bi indee saxaaba yi firi ko ñu jàngat sunna bi muy waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jëfam ak noppeem gu mu noppi ci jëf ju ñuy wax ak lu mu digle ndax sunna ñett yooyu la yonent bi daf koy jëf mbaa mu gis kuy jëf mu bañ koo tere mbaamu mu digle ko yooyu ñett bu ñu dajee ñooy tabax loolu ñuy tudde sunna ñooñu nga xam nag ni topp nañu jeexitalu mag ñooñu ay wàllu yu nekk ci ak xutbu ñu yor loolu ñu tudde maqaamul ihsaan mooy dayo bi nga xam ni moom la yonent bi wax ni ku ci nekk te mu dëgg ci yow te nga jox ko àqam boo dee jàmm yàlla dina mel ni da nga ni jàkk ci moom waxin la yëg-yëg bi ngay am ci sa xol di ko am ci sa deret ak sa ruux dafay mel ni gisatoo kenn ku dul yàlla yëgatoo kenn ku dul yàlla mu wax ne nag dayo boobu nga xam ne maqaamul ihsaan lañ ko tuddee soo demee ba lott ci loolu ne la wóor ni yàlla ngi ni jàkk ci yow di la xool bàyyi na la xel ndax foofu nga toll maqaamul ihsaan loolu lay firi li koy firndeel itam moo di yonent bi dafa xëy benn bis dajeeg benn saxaaba bu ñuy wax xaarisa mu ne ko kayfa asbaxta yaa xaarisa xaarisa ana nan nga fanaane mu ne ko asbaxtu muminan xaqan xëy naa day di doon ku gëm yàlla dëgg dëggi gëm yonent bi ne ko inna li kulli xaqin xaqiqa fa maa xaqiqatu imaanik dëgg gu dafa am lu koy firndeel ana luy firndeel yow sa dëggu gëm yàlla mu tontu ko ne ko azmatu nahaari azmatu nahaari wa ashartu layli fa asbaxtu ka anni arsh anzuru ila arshi llahi barizan wa ila ahli ljannati fi ljannati yatazaawaruun wa ila ahli nnaari fi nnaari yatacaawawna mu ne ko arifta falzam mu ne ko man daal bi ma ma bi ma maralee sama bopp maanaam koor lay wax gàdd samay nelaw muy guddi gi nelawatu di jaamu yàlla ak jàng alquran nee na dafa mel ni dama jàkkaarloog arshu yàlla bi ma jàkkaarloog arshu yàlla mu génn mu génn ma xool ci sama ndejoor gis waa àjjana ñuy ziarante ma xool ci sama càmmooñ gis waa safara ñuy dankalikoo di yuuxu loolu de moom laa gis yow yonent bi mu ne ko xam nga téel foofu kooku dayoo la lan moo koy maye soufisme moo koy maye tasawuf moo koy maye tasawuf mooy maqaamul ihsaan am na nag lu yàlla waxoon nañ ko bàyyi xel yàlla newoon na man aada li waliyan faqad aadantuhu bil muharaba képp koo xam ne daf ma noonoon sama wàliyu dëkk naa ko xeex man yàlla te yàlla ku mu xeexal daan la waaw waaw Cheikh Ahmadou Bamba waliyu la alxaaji Malick wàlliyu la Cheikh Bou Kounta mi fi nekk wàlliyu la kilifay diine yi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ngànk ci alquran ji ay wàlliyu lañu waaw lu tax ñu di leen diingal lu tax ñu di leen diingal salafiste mooy lan na ñu indil ñu indil lan la ñu bàyyiloo xel mag ñi nga xam ne tey ñoo fi wutu ma ñi nañ ci bàyyi xel bu baax samaam du liggéey ndono lu toll ni li mu liggéey téye ko def ci tarbiya ay doomu aadama defar ci seen jikko ak seen melokaan ak seen taxawaay bu rafet nit jóge fenn fële yore xalimaam yore kàddoom bëgg a yàq ndonoy mag ñooñu loolu kenn waru ko seetaan lenn rek moo ko mën a tontu xam-xam xam-xam a koy tontu wax wax koy tontu bind bind a koy tontu te li fi mag ñi bàyyi leer na bi ci des monsieur le ministre pour ma bañ a guddal moo di loolu ñuy wax al ijhaad muy avortement médicalisé sëñ bi bu mu ko déggee dafa laaj ni waaw loolu lan la ñu ne ko loolu de mooy jigéen joo xam ne war na lor dem na ba mu neex ko mu ne buggul a jur doom ji mu rey doom ji ci biir mu génn ah ñooñu dey xanaa dañoo fàtte li daloon Seydina Omar ibn Khattab te Aliyin toog Omar ibn Khattab dafa nekk buur jullit ñu ñëw ne ko diw benn jigéen ëmb na xamul ni amul boroom kër wóoru ko xamu ci dara mu woolu ko ndaw si tiit bi mu tiitee mu avorté bi mu avorté ci yoon wi ñëw saxaaba yi daje coow li jóg Seydina Umar ibn Xataab xool Seydina Ali ne ko yaa Abal Xasan maada taqulu fi hadihi al masala ana lan ngay wax ci lii problème bi loo ciy wax mu ne ko diyee moo la ci war genn wàllu diyee moom ngay jël joxe ko parce que yaa tiital ndaw si ba mu avorté ah dafa kon avortement baaxul avortement bu nit tey te moom tayu ko moom Seydina Omar da ko wóolu ndaw si moo tiit kon nga tiital nit mu avorté daganul waaw ah, boo ci joxe ndigal nag fan la ñu jëm moo ndax loolu ñun mën nañ koo lay ëllëg ci suñu kanamu borom loolu nag moo ma ta bàyyi xel parce que itam kenn ku ci nekk ci ñun yaa ngi dund fii waaye ñaar gëm nga ko loo gëmati gëmati gëmati gëm nga ñaar gëm nga ni juddu am na te juddu nga gëm nga ni dee am nga dee am na te di nga de parce que yaa ngi koy defal ay nit waaw lu toll ni àddina doomu aadama yi di ci dund sàkk seeni atte organise ko man cee dund nga mën a toog xalaat ni ëllëg du am ëllëg du ñu laajte lu nit ñi doon dundee lu mënul xel mënu ko nangu addina wi daal day jeex nii rek mu jeex xel du ko nangu logique mënu ko nangu bi ci des monsieur le ministre moo di dafa am lu ñu dëgmal muy élection locale yi gox goxaan yi sëriñ bi ñaax ci njaboot gi ñaax ci njabootu askan wi ne nag waay waay ñu bàyyi xel te ñu xam ni doomu aadama yàlla ko bind respecté ko Sénégal nag am ci beneen jéego boo xam ni uute nag yeneen réew yi sénégalais di nutu teraanga di nit ku yiw koo xam ne boo ko woowee mu ci jàmm mu fekk le ci loolu nag bu amee mu war a am ci réew mi am ñu ŋànk réew mi am kujje goo xam ni jóg nañu ngir jëkkante sëriñ bi nee mi ngi leen di dénku ñaar mi ngi leen di dénku ñaar bi ci njëkk mooy nañu waddu seen làmmiñ làmmiñ buñ ko waddul bu sibaab nit ku yiw ku bëgg a defaral moroomu doomu aadamaam bu jógee di wax di nga ko xam ci waxam waaye boo xoolee comportement bi di nga ko naw waaye am na doxalin yoo xam ni soo ko doxalee ci waxin doxal ko ci melokaan doxal ko ci taxawaay ak jëf nit ki ngay wone ko jox ma sa kàddu ma defaral la sa àddina su la joxee kàddoom day càmbarul xoolul ràññeewul waaye bu ràññeetu la ko jox kon sëriñ bi nee na mi ngi ñaan askan wi yëpp ñu xam ne lii seen xàq la ñoo ko moom te valeur la te àddinaa ngi leen di déglu nañu wonewaat nañu wone ni Sénégal toll wane dayo Sénégal ak dayo sénégalais ci jikko ak mën a déggante ak moroomam mën a jëflante moom ci lépp loo xam ne dafa rafet te teey bi ci des xam naa ni fa laay tëjee monsieur le ministre yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa toog benn bis ak saxaaba yi ne leen kayfa bikum ida fasaqa fityaanukum wa tagaa nisaaukum moo nu ngeen di def su jamono ñëwee ba seeni jeunesse jeunes yi kàccoor su ci kersa bay def lu leen neex mbaa di ko wax jigéen ñi am liberté mën a def lu leen neex ci mbedd mi ak ci ruq yi ak ci béréb yi ñu tànn su boobaa nu ngeen di def saxaaba yi laaj ko ne ko awa yakunu dalika ya rasulallah ndax loolu dina am mu tontu ne leen wa ashaddu minhu sa yakun lu gën a metti loolu dina am ñu ne ko lan moo gën a metti loolu mu ne kayfa bikum ida lam taamuru bilmaarufi wa tanhaw an il munkar ana nu ngeen di def nu àddina bi def nu sama xeet di def ëllëg su fekkee dam nañu ba dootuñu digle lu baax dootuñu tere lu bon ñu ne ko awa yakunu dalika ya rasulallah moo ndax loolu dina am yonent bi mu ne wa ashaddu minhu sa yakun lu ko gën a metti dina am ñu ne ko lan moo gën a metti loolu yow yonent bi mu ne kayfa bikum ida amartum bil munkari wa nahaytum anil maaruf ana nan ngay nan ngeen di def bu jamono ñëwee ba ngeen di digle lu ñaaw di teel a lu baax ñu ne ko kayfa yakunu dalika mu ne wa ashaddu minhu sa yakun ñu ne ko loolu naka lay demee mu ne leen lu ko gën a metti dina ñëw de ñu ne ko lan moo ko gën a metti mu ne leen kayfa bikum ida asba ida asbaxa almaarufu munkaran wal munkaru maarufan ana nu ngeen di def bés boo xamee lu baax lu ñuy def ñëpp ñu ko gis dañ koy sim ne lii lu ñaaw la waaye kii daf ñu sonal wax ji lëjal nañu jëf ci baaxul li bon li nga xam ne dañ ko indi moom lañuy ñuy naw yëkkati ko su boobaa nu ngeen di def mu ne ko nan la ju def yonent bi mu ne préparé leen xam ne àddinaa ngi tukki moo tax ma tëje discours bi ma sax discours waaye këlima la dama koo tëjee benn ñaax boo xam ne maa ngi ko jëmale ci kilifa diine aya qaadata diin alxanifi alaykum taxiyatu mushtaqin yaxinnu ilaykum yéen ñi jiite diine ji yéen xalif généraux yi yéen doomi soxna yi maa ngi leen di jox nuyoo boo xam ni dama ko tibbee ci sama xol di leen ko jox fa antum xumaatu diine yéen yéenay garde diine ji la ko yàlla dénk ngeen di ko garde waaye nag ngeen bàyyi xel ci ni te laa abat bihil ahwa ne wóor ni ay bànneex ak i xalaat mi ngi jóg di foye diine ji bëgg koo tas ngeen noppi waa ji di laaj ni noppi googu ngeen noppi lu ko waral ndax noppee ñàkk wërsëg la ragal a ñàkk wërsëg mi ngi leen di wax ni yàlla rek a am keneen ku du yàlla danga nga ñàkk ndax da ngeen a ragal ay duma nee na mi ngi leen di wax ni bu ngeen ko ragalee fii duma yàlla moo gën a dis ëllëg te ngi leen di xaar kon yéen kilifa diine yi ndono li nga xam ne tey maam yu baax yi bàyyi nañ ko fi te mu indi fi nag li nga xam ni indiwu ko ci benn réew yàlla jox ko senegal muy chance u Sénégal stabilité am juboo am déggoo am orma am jalti-jalt fu mu amee bu kilifa diine yëkkatee kat doom ñëpp daal di bàyyi loolu bu ñu ko yàq bu ñu nangu kuñ ko yàqal te nag li ma wax ci ay groupe yoo xam ne groupe yi dina la ñu tudde seen bopp jox di ŋàññi sëriñ si di wax ci ñoom lu ñaaw loo xam ne nopp bu ko dégg sib loolu daal monsieur le ministre sëriñ bi ak ñi mu ko seqal ci diina ji ñu leen ci bàyyiloo xel xam ne asgoor kenn du ko xas te it buñ ne liberté am na waaw lu tax ko ñuy ŋàññi du dañ ni si am na yow yaa ngi wax li la nekk du dëgg waaw ki nekk ci li ko neex jàpp ko nga ne du ci jàpp dinaa ko ŋaañ loolu beneen taxawaay la bu doy waar la kon nag loolu itam ñu ngi ci bàyyiloo xel yéen yi nga xam ne yéen lañu yàlla booleeg yéen ngeen taxaw ci taxawaay bu rafet ngeen bàyyi ko xel xam ni kat comme réew mi laïcité moo fi nekk kenn sañta diingat diinay kenn waaye nag kenn it sañu mukk jël loo xam ne day yàq pas-pasu doomu aadama kenn sañu ko loolu ku ko def jalgati nga liberté jàmbur te nit soo xasee ne liberté am na bul jalgatee ti liberté jàmbur kon monsieur le ministre sëñ baa ngi lay sant bu baax la ñaanal gis na sa taxawaay ku ne xam na ni jamono bi dëgër na Covid bi nga xam ni moo fi passé te mi ngi fi ba léegi ci ñaari at yi yëngal na àdduna bi jaxase na koom-koom yi ba nit ñi lañu ñu mënoon mënatuñ ko kenn ku ci nekk ci ñu xam na ko kon bu ñu demee ba ci waxtu yi am loo xam ni xëy na manqué na ci loo xam ni état bi daana ko def di ko defal itam kilifa diine yi njaboot gi di ci yaakaar ñu dem ba nga xam ni xëy na taxawaayu àdduna bi moo indi loolu ci wàllu koom-koom waaye yow nga jóg jógin bu rafet ci sa xalaatu bopp ak gëm ni sénégalais nga kenn nga ci biir njaboot gi yërëm nga it kilifa diine yi xam nga itam ni ñu tooge nga daal di jóg ngir jàppale yi ki nga xam ni moo la fi teg muy président de la république parce que jàpp naa ni tey boo génnoon fii ñaari dërëm yoo génn ci sa poche joxe ko di nga ko joxe ngir yàlla waaye di nga ci jàppale it ki nga xam ni moom nga àndal te nga nekk asgor di liggéey moom sëriñ bi nee na li nga ko indi gis na ko yëg na ko bu baax a baax mi ngi lay sant di la ñaanal yàlla waaye it mi ngi xam rek ni ba léegi li nga xam ni moom lañ fi waxoon léegi ci njaboot bi ci wàllu njàng mi wàllu liggéey bi wàllu paj gi wàllu àll bi te lépp di njaboot lépp loo xam ni njiitu réew mi mën na co mën na ko yokk mi ngi ci na ko yokk ci nu mu gën a rafete loolu mu ngi la koy ñaan di la ko yóbbante pour boo demee nga waxal ko ko njiitu réew mi njaasaan nag ay góor lañu boo leen xañee duñ ko wax mukk soo leen mayit ñu gërëm la ndax itam nitu yàlla noonu lay def xam nga euh, waaja nekkoon balax dafa am benn nit yàlla bu ko seet si mu ne ko kay kay fa antum ci seen dëkk nu ngeen mel yéen ci seen dëkk mu ne ko ñun de bu ñu yàlla mayee ñu sant bu ñu xañee ñu muñ <laughs> mu ree ne ko loolu de yéen ak ngeen baal ma ci wax yi yéen xaj yi balax yi yéen a yem mu ne ko ah naka la ñu yeme mu leen ñun de bu ñu yàlla xañee dañ koy sant bu ñu mayee ñu muñ dayo la dayo la bokkul bu ñu yàlla xañee dañ koy sant bu ñu yàlla mayee dañuy muñ dayo la loolu it Cheikh Abou Mouhamed Kounta mi nga doon wax sànq ci leer njaboot bi tey toujours damay wax ni euh, nit bu fàkkee ab dëkk gor ko gas teen tabax jàkka mbaa fu ñu jaamoo yàlla jëmbat njaboot dama wax ni kooku kenn jiituwu ko ci dugal loxoom ci koom-koomu réew ma kenn jiituwu ko ci dugal loxoom ci yar waa réew ma kenn jiituwu ko ci dugal loxoom ci jàngale waa kooku kon lépp lu ñuy nas ci réew mi itam bokk na ci ci jëfam ak ci xalaatam ak ci pas loolu nag moo ñu may chance fii tey ci Sénégal ba tax lépp alhamdulilahi yàlla def ko ci dal liit firndeel na ko ndax kat buur buur àndeek sëriñ ñu ñëw seq benn doomu aadama bi wax naa ko ko ci dakaar nee naa ko Sénégal buñ ko jëloon def ko benn jëmm yéen ak sëriñ si da ngeen a séddoo jëmm ji yéen ci gën a tuutle nag état moo gën a tuutle cër ci nit ki li tax moo di état li mu yërif ci nit ki mooy tànk yi ak loxo yi ak làmmiñ bu ko neexee mu ne ko doo fi génn bu ko neexee mu ne ko bu fi waxati su ko neexee mu génn jëmm ji réew mi sëriñ bi nag li gën a am solo ci nit ki moom la ko yàlla jox muy xol bi te xol bu nangoo cër yëpp nangu waaye bu xol bañee cër yëpp bañ te kenn mënta forcer kenn ne ko kaay bëgg ma mukk man ngaa forcer nit ki nag génne ko mbaa nga dëj ko ci biram waaye doo ko forcé mukk ne ko kaay bëgg ma sëriñ nag loolu la ko yàlla may kon ñoom ñaar bu ñu seqee nit ki faw ñuy waxtaan faw ñuy diisoo parce que li ñu seq dafa rëy te doomu aadama la te Sénégal jàmm rek la laaj jàmm rek it lañ fiy ñaan kon sëriñ bi nee na mu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala jàmm ji nga xam ne yàlla def na ko Sénégal yàlla na ko yàlla gën a jëmbat suuxat ko kenn ku ci nekk ci yéen ñi ñëw lañu la dénk te président dénk la ko yàlla boo ci am ndox yàlla nga ci def lu président gërëm ak yàlla ak askan wi yàlla na leen aar aar Sénégal aar sunu kilifa diine yi ci barke yonent bi alayhi salaatu